marabout yi ce sont des citoyens ordinaires mhm. muy benn mhm. et loolu dafa topp Macky Sall d'ailleurs ça a rendu très difficile les premières années de sa mandat mandature ses relations avec les les les les confréries religieuses waaw mais xam nga il a été obligé que def na Euh, beaucoup d' infrastructure defaraat relation yi te ba tey sax taxul mu mun a gagné. loolu moo tax nga yaakaar mais qu'est-ce qu'il a à s'acharner à vouloir gagner Touba. ah non xaaral rek dama non je damay def constat. beneen bi mu ne la patrie avant le parti. mu ñëw ñu ne beneen problème congénital bu mu am et bu ko topp et bu tax tey ñu bari mere ko mu ne la patrie avant le parti mu lancé la traque des biens mal acquis. Euh, baax na baaxul defee nañ ko nu baax defee nañ ko ñu baax ça s'est retourné euh, euh, contre lui mu écarté les militants de première heure de son de son régime et ça lui a valu c'est-à-dire dafa mel ni c'est le système c'est les Sénégalais eux-mêmes ñoom ñooy corrompre Euh, euh <laughs> le, le, le locataire du, du, du, du palais. Ma... Et, c'est bizarre que yow mi toog fi di défendre ces valeurs cardinales là ngay mën a reprocher Macky Sall euh, wax boobu mu mu mu waxoon. finalement lan lañ gëm. ma loolu nag mën naa la ci tontu dabor euh, on a dit que le pouvoir reflète la nature profonde de l'individu. c'est pas le pouvoir qui corrompt nag ki nit ki na mu meloon di ko nëbb. pouvoir bi moo koy révélé et le vois d'ailleurs nit ki mën a yeewu suba am tuuti xaalis muy changer ay comportement da nga koy gis tous les jours dans les foyers dans les ceci au niveau au sommet de l'État. luy sommet de l'État. réel politique. man sommet de l'État man looy wax ni xam j'étais quand directeur de cabinet de Alpha Oumar Konaré qui était président du Mali j'étais le secrétaire du G7 ñoom Kadhafi dañ doon toog ñoom Obasanjo non non non je suis pas d'accord. moi le pouvoir ne m'ébranle pas ah Famara Sagna moo ma jàngal leen moom nga ko laaj fan résistance mi ngi fii ne moon Lamine quand tu rencontres le pouvoir là c'est un moment si tu laisses le pouvoir te dominer tu es foutu à ce moment précis il faut dominer le pouvoir mais il faut qu'on qu'on avance peu donc Alors... donc ci ci loolu man d'accord ma ci woon xam nga nee naa la les chefs les familles religieuses sociales erreur boobu la def. mais Mamadou vous êtes euh, contradictoire da nga ne. sénégalais yi li leen institution religieuse yi jaral l' institution euh, les institutions étatiques politiques jaralu leen ko. waaw c' est un constat. Euh, Macky mu ne mu def déclaration malheureuse nga attaque. attaque ouais, parce que les, les familles religieuses ne sont pas des citoyens où ordinaires. On, est-ce qu'on met le curseur. Euh, y a pas de, il à mettre. c'est un constat que les familles religieuses sont des institutions sociales dans ce pays nee naa la mi ngi jógee mën nañ ci dugg xuus man nu may wax moom. na nañ ko kii parce que on a. on a pas mal de sujets d' Paoskoto fa la jógee donc dañoo taxaw encadrer population yi résister contre la la colonisation et les projets de la colonisation loolu moo am. loolu mooy société sénégalaise am na ay institutions sociales il y a les institutions de la république man dama la ne institution de la république la ñu gëmul. parce que ñu koy incarner incarner wuñu ko normalement parce que le président a trop de pouvoir c'est parce qu'il a trop de pouvoir que tous les lobbies et cetera vont vers lui mais moom si ces pouvoirs étaient partagés entre moom ak l'Assemblée nationale avec les collectivités locales par exemple je dis dans le domaine des ressources foncières des ressources en eau des ressources minières ak l'autre il faut que les populations locales et leur mot à dire ñu ñu ñu ñu décentraliser davantage ñu éclater le les les les dans ce domaine-là si on ne le fait pas on va vers de gros dangers on va vers de gros dangers ce que tu vois à Saraya ak yooyu yëpp quand même c'est quand même. c'est les prémices. c'est les prémices il faut que les populations locales parce que l'Afrique c'est l'enjeu du monde.